bokki jullit yi bokki taalib yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di nuyu mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne noonu nekk ci jataay bi di tàmbalee nuyoo bi di ko jaare ci suñu wëlëree sunu xarit bi ñu feggool di sunu sëriñ di sëriñ Ahmadou Diaw moo ngi jël nuyoo sëriñ Cheikh ak njaboot gi yépp teg ko ci loxoom di jël nuyoo mbooleem jëwri ni kër gi ak ñépp di ko jaare ci loxoom di la ndokkeel di la jaajëfal bu baax di sant yàlla it bi mu nu mayaatee tawfiq defalaat nu ndimbal ba ñu fekkee siwaat bis bii teewee si waat jataay bu solo bii ci béréb bu sell bi euh, di la sant ndax lépp loo wax rek sa jikkoo ko waral sa baax moo ko waral mbir yi du ab jox jox waaye yëg la ndax bari na ko lay jox te yaa ko ëppale kon kon yëg yëg la yëg googu nag du rek bu bis bi jotee lay doon waaye waxtu wu nekk yaa ngi ca ci fu ñu daje bu ñu gisewul sa téléphone say ñaan lépp a ngi ñëw ci noonu te loolu it fonk sa maam ak bëgg sëñ Tuubaa rek ko ko waral ndax mag ñi ñoom ci loolu lañ nekkoon barki démb Serigne Bachiru moom Cheikh Abdoul Khadir daf ko doon waxaat ca Njaañ ca bisu sëñ Mor ba wax ne mag ñi toppoon sëñ Tuubaa day ñu mat a jox gëdd lañ mat a wormaal mat a yëkkati. ndax képp ku leen di gotti rek day mel ni sëñ bi ngay gotti kon loolu ñun sant nañ ci yàlla ndax ca loolu lañ nekkoon ndaka jekk kon bu ñëwee dëggalaat loolu kon doom yi ngërëm joo gis rek war nga koo joxub cër war nga koo safoo rawatina nag bu fekkee jikko ja war a ne ci kilifa nekk na ci moom te loolu mooy lii ñu xam ci yow loolu moo waral bis bi bu ñu déggee sa kàddu dañuy egg sax ci rusoo wax xat-xat yi ñuy nekk wala yitte yi wala ñu nu soxla dañu koy rusa wax dañuy wax rek léegi sëñ bi waxal nu waxtu woo xam ne bu ñu agsee rek mën a sànni suñuy kàddu jottalante kook taalibe yi delluwaat ndax bu fekkoon ne ab jox la yow sab jox a jiitu ndax la ca jiitu mooy bëgg gi ak yëg gi ak taxawu gi loolu it ñun fas yéene nañ bu doon jataay bi it defe naa am na yeneen jataay yu daan am ci biir kër gi te bo yooyu jataay gën a néew am ndaje mbooloo waaye dañ la ciy fekk si loolu it xam sa doxin ci sëriñ Touba ko waral euh, te dama daan wax ne Serigne Cheikh mu baax mii nga xam ne ñu Serigne Cheikh Diaw lu gàtt gàtt jaar nañ ci ay ay ay loxoom nga xam ne kon loolu it yàlla lu muy barkeel la mas na may boo benn bis dima wax ne ma li ma tooñ ne ma la bay xaw di jaxate waxoon di mu na ko yow sama ustaas nga mu ne ah yow est ce que mujjoo doon ustaas bi sax mu ne ko déedéet ndax euh, booba buy jàngal defe naa dama xamul quatrième la xaw ma deuxième lu mu ci doon waaye dafa am lu ñu daan bëgg ci lim nuy jàngal ni mu nu koy ni mu nu ko daan jàngalee te man dama mënoon a jàng xanaa léegi laa yambare nii waaye même bi ma amagul boo ko laajee suñu cheikh da la ko wax bi ma amagul sahaada ibtidaa yi sax dama daan jàngale école bii nekk naa tey am professeur yu jàngale jiwut ñu dem yóbbu ma dem jàngale damaa mënoon a jàng mën a mokkal léegi laa kii nii rek waaye bu jëkk ay deuxième sax mosuma ko jël sëñ Cheikh man na ma dégg man jàng naa ba xëy kii fu mu nekk may jël première man loolu laa daan jànge waaw am na téere yoo xam damay wax ne man na mas na maa tari risaala te xawuma ko sax dem ba benn jamono am ku may waxal ñuy wax ci maxibul xasefa ci liy waral sangaay ma ne ah man ko li jàngoon naa ko bu yàgg même bi may def examen fii dañu mujj numéro 106 laa yoroon dañoo mujj di bind mumtaz nga xam ne lu mu ñëw du ma am ay neuf virgule nangam ak yooyu kon loolu barkeel na ci taxawaay boobu kon jataay bi li ñu ci ëllëg yi ñu ci andi yëpp dafa bari ba kaddu yi ñuy yëkkati mooy la tax mag ñi nekkoon ci lañ nekk rek ba am li ñu jëmmi kii nuy fàttaliku tey ci bii di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mi nga xam ne lépp lu jakk ci àdduna ci nun tañ séntu ko ak jagam ëllëg ci nun ci moom lañu ko yaakaare lu tax moo di dañoo def na saxaaba yi defoon ci yonent bi alayhi salaatu moom it sëriñ bi defoon ko ci yonent bi salaatu ñu def ko ci moom te loolu mooy jaayante jaayante googu nag musunu ko gis gu gëna a gu gëna wér gi mag ñu bax ñi jaayante won ak Cheikhul Khadim serigne bi ci bopam it bis bi tay ñu daje muy ñaar fukki fan ci muharram di bis bi nga xamné ci la ko tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul ñewon ci dëkkam bi di Tuubal mahrusa di ci jëk moy jëmmi béréb bii nga xam ne mooy Touba sëriñ bi da ko bëggoon boo demee ci xasida gi tudd Duaawul Kabir sëñ bi day wax ne Touba ak Daaru Salaam li tax ñu gënal ma ci dëkk yépp mooy sellu yéene gi ma ko sañce ndax sancu ma ko ngir sàmm wala bay waaye dama ko sañtu sàmm ngir jaamu yalla ak it am ci ndigal lu bayiko ci borom bi subhanahu wa taala mu tanal mako mu def fi dir bu bu néew moy bim ko sancee ci wassasin ku ne xam na ne choix lu bay sasin la fi joge kon juróom-ñaari at rek la fi def genn ci bi delsi watu fi ba wam sasin di 1346 muy bis bi ko Cheikh Mahamadul Moustapha indee ci dëkk bii di Touba te Touba gënal ko lépp ba mu nekkee ci liggéey ba di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam fu mu mës a toll mi ngi ñaan boroomam yasirru ju'i li Touba wax mi nii waqi nii adal wara wal tuddib ni samma iskaana di ñaan boroomam mu yombal jàppandalal ak delloom ci dëkk ba di Touba. muy dëkk boo xam ne daf ko tegal ay projets yu wóor ci ni mu ko bëggee ak ni muy mel muy dëkkub xam-xam dëkkub diine dëkkub jaamu yàlla dëkkub ragal yàlla dëkkub génn ci biddaa soobu ci sunna dëkk boobu la ñaan boroomam mu def ko Touba ba mu fi jógee dem ci géej gi dellu si waatu fii ndax bi mu jógee ci géej gi 1902 ba dem gànnaar jóge fa ba dem Thièyeen bi muy jaaraat fii Touba it sëñ Mahamadul Mamoun Ñang mu baax mii di boroom xam-xam di delluwaay bu dëgër ci yoon wi wax na ma ne euh, keroog bi tànki fas yi di jéggi saawoo gi laaj na fii fan la ñu ne ko mooy xal wi jëm Touba waaye ci saase rek dafa jot ndigal ci boromam. mu ne ko sa bët yi bu tegee ci dëkk bi rek liggéey bi yàqu dañ ko tiriwaat ba mu jeex takk nga tàmbaliwaat te ak ni mu bëggee woon Touba ak fi mu ko teg nga xam ne dafa teg gi wari na le ba génne ji ndaam jaarul ci dëkk bi bëgg ko bëgg koo xam ne it ba bi mu nekkee njaareem mag ñi ci boppam bu ko xaal ma saa dikkal ba jalaal ji wër ko buñ bëggee mu dellusiwaat léegi léegi dañuy tudd turu dëkk bi ci wetam bu ne jëmal wetu Touba ga rek ñu gis ne mbégte mi day ñëw ci moom kon mu nekk béréb boo xam ne bu mu bëgg la bu mu fonk la muy Touba looloo tax fu mu mës a toll moom lay saytu di ko bàyyilu xel ba ku mës a ñëw tudd ko dëkk bi sax la mu waxoon sëñ Maxtaar Mariam Sylla wax ne. Euh, xale yi sax ndaw ñi sax xam nañ sama bëgg tuuba muy sëñ Mar Xataar moom sëñ soxna Marema Kunta ñu bokk ak Cheikh Abdou Fadel lépp te booba da koo laaj loo bëgg rek mu wax ko dëkk Touba mu ne ndaw ñi sax xam nañ sama bëgg Touba kon Cheikh Moustapha da koo defal ak bëggam sëñ Touba moomu nag dundam gi yëpp daf ko jeexal ci lu gërëm loo yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi juróom-ñaar fukki ak juróom yi mu dund yépp ba bis bii ñu toog waxtu wi fii ñu toll kuy gëstu sëñ bi te janal sab gëstu xam nga ne waxtu wu ne ay kuréel a ngi taxaw te seen yitte jëpp mooy yoon wi waaye li leen gën a jaaxal mooy mën a gunoo am benn preuve bu jëm ci Cheikh Ahmadou Bam doo ko fekk ci mbindum kuy ab arab mu corriger dara ci sëñ xoppa doo dem ci benn archive gis ñu génne ca dara loo xam ne bu feeñoon mu nekk gàcce ñeel yoon bi lu tax mooy dafa dund dund gu sell goo xam ne lépp daf koo jeexal ci luy gërëm loo yàlla ak yonent bi wa salaatu wasalaam minal bidaaya ila nihaaya keroog ba ko suñ borom wàccee ci kaw suuf ci ama sharaa ba ama wamsasin jéego bu mës a jéggi buy jëm ci boromam la jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko tagg di ko kañ di julli ci moom alayhi salaatu salaam di jaamu boromam fu ne ci géej yi ci xur yi ci désert yi ci montagne yi béréb bu ci nekk sëñ Tuubaa di fa taxaw di wéetal boromam di di ko jaamu ci béréb yoo xam ne sax day wax ne jaamoo naa ko foo xam ne man dong nga si abatuhu na wax di wax da ay at yoo xam ne mel na man képp di ko wéetal di ko ber te du yàq ca lam war a def ca digganteem ak boromam loolu it bu fekkoon ne dafa nekk koo xam ne dafa dëkke julli te du sëlmal dëkke koor dëkke tagg yonent bi alayhi salaatu salaam li Cheikh Mamadul Muntaxa di wax ne li ko boromam jaral mosu koo jaral benn jaam loolu wane na dayo fi sëñ Tuubaa suñ borom ci bëgg ko waaye nangu koo jox léppam loolu it mu boole ci ak dëggu ndax dëggu ak sellal dafa am ku leen lu leen di gunge sëñ Tuuba ci dëggu ak sellal la jiitoo ñëpp te nit bu dëgguwul mënta sellal nit bu sellalul it mënta dëggu motax bo demo bo bo boo mas na may gis ci téere Imaamul Ghazali bi ñett yo lay lay lay lay lay lay lay lay bolé muy day bolé an niyya al ikhlas as sidq ñett yo lay bolé muy yéné parce que yéné yi moy fondement bi nga xamné ci ngay tek li nga ci bëgg tek teg sellal ñëw te nit bu sellalut mënta dëggu ndax dëggu mbolém béréb yi ñu koy jëfandikoo yëpp ci say wax boo booy wax boo amul yéene ju sel man ngaa bañ a wax aw yiw te bokk na ci liy jur jàmm ci àdduna ak ci alaxira mooy wax aw yiw li tax yonent bi alayhi salaam wax ne képp koo xam ne mënta wax aw yiw na noppi kon day mel ni ñaari jéego yooyu ca la jéggi ba raw jëpp moo tax mu waxoon ne liggéey bi ma liggéeyal sama borom ci juróom-ñaari ati géej gi du réer mukk lu tax loolu mu wax ko mooy nee na naxuma sama borom bi ma koy jaamu te yàlla it kenn du wàcc mu des sama borom it naxuma bi may fay waaye la ci gën a yéeme mooy laysati dunia bi jaari bi daari jaza wa sha'nu fil axir kon ndeke liñ gis lépp ci àdduna du pay gi ndax sëñ Tuubaa nee na àdduna du këru pay waaye mbir ma ëllëg la kon day mel ne bu ñu demee ëllëg la lépp di gën a la lépp di gën a feeñ la lépp di gën a leer te loolu wéetal boromam rek ca la nekkoon di tàggat aw nit di leen defar di leen tàggaleeg ayib bi bakkan ak banneex dox seen diggante ak seytaane ak àdduna ba def ca ay kuréel yu takku yoo xam ne kenn ku nekk boo ko indee ci miidaan bi xam ne bu dee ab kursu la kenn du ko ci jiitu ci digganteem ak boromam mel na magum sëñ Tuubaa moo tànn mu nekk pas-pas boobu yitte joojoog doxiin wu rëy woowu rek la am saxaaba yi lañ doon diir ndax moom la leen sëñ bi loo moom sëñ bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy roy teefam waaye mag ñi dana leen saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine saxaaba yi ku ñuy roy yonent bi alayhi salaatu salaam suñ borom kum digle ñu roy ko mooy alayhi salaatu salaam wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kii war a roy dellu ci moom looloo tax sëriñ tubaab nit xam nga tawri ak pratique yi moo am nazariya ak tatbiqiya nit mën na fexe ba tawri dara mais du ko pratiquer loolu boo ci bëggee yeew waxtu wu ne léegi-léegi nga gis koo xam ne mën naa defar dara bu dee yoon wi la yoonu murit day yoonu jëf di yoonu pas-pas di yoonu pratiquer du yoon wax rek waaye yoonu jëf la te loolu boo seetloo li lay xamal ne jëf ji sëñ bi da ko ci inséré ba mu dëgër mooy ba muy ba muy leeral ñeenti ñi aju ci moom ñeenti xaaj yooyu lam ca dëgal mooy ku boole jaamu yàlla ndax digalul suñu borom ma ak di ma liggéeyal faw mu tabbi àjjana ci kenn du ko xisaab waaye gis nga da cee dugal di ma liggéeyal ki nga xam ne daf may liggéeyal te jaamuwul yàlla faw yaraa azaba dunia wala azaba al axira faw ñu mbugal ci mbugalum adduna te mbugalum adduna lu ne xaj na ci kii ne day jaamu yàlla te du ma liggéeyal it mi ngi ci fen wu nëbb ki jaamuwut yàlla lu ma it mi ngi ci fen wu weex tal sequñu dara tey sequñu dara ëllëg kon day mel ni dalay tegtal ne bu fekkoon ne luy doy doy na yàlla séddoon na mag ñi cërub xam-xam sédd leen sédd leen cërub judd bu rafet waaye teewul dañoo xam ne ngërëmul yàlla li ñuy wuti yàlla def na ko ci Serigne Touba ñu dem wuti ko ca moom ba kenn ku nekk tey dégg jëfam jooju. moo ne ñoom de doon nañ dund jamono yu jafe tey ci àdduna mag ñi li xew nii lépp ay sondeel lañ xamoon wala làmpi pétrole loolu sax yéex naa ñëw ci yeneen jamono yi la am ngànji lañ daan taal di ko fénge day mel ne loolu la xamoon bu njëkk tey jii xool ni àdduna avancé ci ay jamono ci ginnaaw nii technologie bi mel nga xam ne nit day ne fu sori yónnee lay waxam nga xam li mu wax ab bataaxal daanañu ko bind di ko yónnee ci ay gaar wala nit waru fas di dem lu yàgg wala ñuy yóbbante ci lu la yàgg wala ak maggal daana am ñuy soxlaa jot nit yónnee ko bataaxal booba mu jaar fa moom dem tey xoolam moyen communication bi ni mel ak jokkaloo gi ci lépp fi adduna bi toll te pourtant ñoom mag ñooñu loolu ñu doon dund jamono ji jafe jooju teewul nu fexe ba réussir seen àdduna bi àdduna ñëwee mel ni dafa indi ak yombal nag ci la indi ak tënk ci noonu nga xam ne daawuñu tal dara lu may seen diggante seen borom daawuñu tal seen diggante dara lu may liggéey jaamu yàlla liggéey te mooy liggéey bu leen di faggul lu lew luñ mën a dundee la ca ëppoon ci seeni i liggéey mooy mbay waaye boole kook nag di liggéeyal sëriñ bi nga xam ne lépp luñ mës a jàpp ba dégg ndigal daw nañu wuti ko moo ne bi àdduna indee am riiram dafa àndaale ñuy influencer nit ñi di dindi yooyu pas-pas wane ne kenn wër sa topp kenn te xamuñu buut bi li ko samp dooy caaxaan ay lobeeki caaxaan mayul mag magi sëñ Tuubaa ji lii ñu toll ni nga koy xamee mooy ki yaakaar man Mansour Diaw loo ko mën a wax baax na nangu na baax nga nangu na nangam waaye cëram mooy Serigne Mansour ka yaakaar Serigne Darou Assane Ndiaye ka yaakaar Cheikh Mandoumbe Xabbaan ka yaakaar maam Thierno borom Darou Moxti te kenn ku ci nekk ndab li la Serigne Touba tegal fi sëpp ëtt doy na la sëkk regg na la ba nga mën caa sedd say gaañ te kenn ci ñoom koo xam ne ndab li mën nga ko tibb ba jot fa mu yam amut kon du lu ñuy gàllankoor du ay pexe loo xam ne mën na ko dindi li sëñ Moustapha Salihu di wax ne ki liggéey liggéey bi day tàmbalee ci ku liggéey wuti te ku ko liggéey ginnaaw yàqoowul ci ki ko liggéey liggéeyut nag kon mënta yàqoo ci ki ko liggéeyoon moo ne mag ñi de daanañ ci yeew nit ngir bañ mu dem ci sëñ Tuuba daana nungu soxna si nit bu demee ci sëñ bi nungu ay toolam nungu ak juróom daanañ taal néegu ndayi nit ngir bañ mu dem fekk sëriñ Tuuba waaye ana lu yàlla di def tey tund wu mag ma sa jóge fekk sëriñ Tuuba boo delluwaatee ci tund wa mag mag ma fa jóge woon ay njabootam ñoo yilif njabooti mag ña fa nekk ñii sëñ Tuubaa lañ liggéeyi li woon ba ñu dellu si am ngërëm mag ñi njaboot ga fa nekk ñoo leen di bàyyil tool yi ba di leen jox addiye di leen tudde ay doom te sëñ Tuubaa bu la defaree ba noppi dalay delloo ca biir fa nga bàyyi koo woon ñooña topp la defar gim lay defar li koy yokk doo xam lu mu doon lu tax doo ko xam mooy ngërëmul yàlla bu la yàlla gërëmee ku bokk ak yow ndab am ngërëmul yàlla ku la liggéeyal am ngërëmul yàlla ku la ziyaare am ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla noonu lay tasaaroo ci biir doomu aadama yi sëriñ bi nag mag ñi ku ma sa ñëw fi moom doo ko gaaral adduna doo ko gaaral alal doo ko gaaral dara ngërëmul yàlla rek ngay ngay sakku ci te ngërëmul yàlla loolu mooy li sëñ Tuubaa doon wut moom it te ko sakku ci boroomam jaare ko ci yonente bi alayhi salatu salaam ba wax ne yàlla gërëm na ma yonente bi alayhi salatu gërëm na ma ahlu badrin ci boppam gërëm na te ahlu badrin boo demee ci xasida googu di ay sa min daa indi jeewali sëñ bi dafa lu ciy nettali loo xam ne dafa wax ne jëmmi yàlla suñu boroom ci boppam moo wax ahlu badrin ne leen sama jaam bii di ahmadou bamba dafa nam ma liggéeyal sama jaam bii di rasulullaay seytaane bëgg koo yàqal bis ñi ngi tey boole naa leen ne ahlu badrin na ko radina wax qabil na nungu nañ gërëm nañ nungu ko bis ñi ngi tey lu jëmati ci moom nun nooy jóg waaye mës ta jël benn yoon xam nga danaan la boole force boo xam ne da nga ko utiliser woo jëfandikoo ko waaye sëñ Tuubaa kenn mës sa gis fu mu jëlee doole jooju jëfandikoo ko bañ ko ba première attaque bi am tam mënoon koo def dane law laa xawfu bi addunia bil axirati la qaatalahum ahlu badrin na ba ma ragalutoon a jënd adduna alaxira kon ahlu badrin faagaagal tubaab yi sama njëlbeenu daje ak ñoom waaye mës sa jël te gis naa ci mbindum mu mu doon wax sëñ Modou Xari Bousso moom sëñ ma Samba Fati di ko nettali nettaleem yooyu nee na ko dem naa ci géej gi ba ñëw liy nuru baatin jëfandiwuma ko jëfandiwuma ko lu toll ni dee dee weñ lu mu doon rek coobare suñu borom la doon kon loolu day mel ni jëfandikoo doole jooju te kattan gi mu am lool it feeñ na ci bi mu ñëwee daarul mën naan ñuy bënd ay gaalam di dagg ay sakketam moo ne ba mu ba muy joxee ndigal ñu jàng xasi dëkk rabbi bi may sor adana xat faja a ba ak si yaa maalikal mulki moo leen juddu laay xaalibiina yëpp suñu borom da leen a fëgg da leen yaa maalikal mulki jooju Ahmadou Bamba wax mooy yaa xay yaa qayum ji rasulullahi waxoon badar kon dem leen lu ci ahmadu teg na ngeen ko def waaye lu mu ca teg irham jami al wara kon day mel ni force bi ko yàlla jox jëfandikoo wu ko ci lor nit loolu sëñ Moussa Ka naan ko karaama ki xar baax ak wilaya ki booti xol ku leen mas a am sëlboo ku dul yow Serigne Touba kon day won ne moom mës ta sëlboo gis nga ba mu nekk nga yor yii muy karaama xar baax nga yor yii te lamboo rahmatallahi yaa lewet li ngay muñ te man koo faj amum kem Serigne Touba ku lay sóoru daf laa réere boo gees gestoon mu dee damul ub nga soodaan ak bayaa dina ak Tuuba moo ne yëmu ca sax waaye da caa dolli ne ku gis sama mbind mii na xam ne man baal naa képp ku ma tooñ duma fayanteeg benn bakkan li ma yéene ki aju ci man di ab murit laa yéene ki ajuwul ci man di ab jullit nga xam ne day dajj a taxansub nga xamne ba ci ngir yi ni gaay yi di bedd konte seigne touba dafa am acceptation ku ne la seigne touba nangu sa mbir don kon daf ñu digal ñu nek ay malik yoon mom teewul gis nga bo deme ci bir ay mbindam bi malikin lil masaya shafi'in abi hanifatin ahmad al mahmouda allah jëriñ gi mu jëriñ mbindeef it mooy xoolal xasaayid yi tey jii xasidag nooru daarayn tey sirul asir mafatihul bishri وكان kana علينا نصر المؤمنين li ci lamb ci ay ngenee de ki bari na ñoo xam ne bu ñu la doon jox secret dañ koy côté waaye fi ne xasida wakkaana xan man gi may jàng gi sëñ ahmadou gii di jàng gi sëñ muntaxaa di jàng bépp genn wakkaana xaqan gi la boo taxawee fi jumaa ji wecc ko rek boo ubbee wajatukulee bi xam ne wa sukur gi ngay jàpp gi ngay am mooy xas kaana gi ñëpp di jàng pas-pas ak dogg gi nga ci amit moo lay jural njariñul boo ko jàngee sellal ko ku ne moom nga yem njariñ lu toll nii ku ko am yéene ko ñëpp kon wane na ne bu ne sa naqin bi la dara yi moomu melokaan te ku ne mën na ko jariñoo te damay wax ne turu yàlla rek nit daan ko topp ay at di nawet ci tool bayal nit ba jeex nga noor fa sakketal ko defal ko lépp ba mu fatu ba mat ñetti at mu jox lu turu yàlla wi nga door a dem tërbiyee wu sëñ Tuubaa nag yëpp mel ni nit dafa ñëw na la may ma cere nga ne ko demal ruuj demal faru demal bay mu nekkee kocc kocc ba ba góob ba def yam war a def yépp waaye bu dee am daaxam yii da koo defee noo xam ne day mel ni cere yi wata boor ju noppi ngir lan lu tax fu ci nekk day wax boromam yow boo demee ci xasida Tuhfatul Muttadarrixiina feeñ na ci wala yi jut wali la si daani li nadmihi bil am ni wali wali la si daani ak wax bal nasmi hada yaakar yi wa hab liman bihi yunaji ma yarum nga xam ne ki ciy sakku li muy bëgg li muy sakku na nga ko ci defal loolu tiyaaba la ju yaatu ba ca topp mooy màndu téef gi nekk ci sëriñ bi mënoon naa def ay bokki boppam ku sëntul mbakke doo am mbooloo kenn du la topp waaye melow suñ borom la yor mooy lan foo ko toll rek mu toll la fa tey jërëjëf ji mu wax sëñ suur Diaw mooy jëm wax sëñ Mandoumbe mooy jëm wax maam na mooy kenn ku ne gërëm naa la law ni contact bi mën a taale benn lam contact bi ñu mën ko branché noo xam ne bu takkee lamp yëpp tàngadoo jërëjëf Serigne Touba jooju noonu la mel maanaam ndab yi ñuy dënalee ci kër yëpp benn guulaam doon ko ne ndab yi man naa ëppante ndax la Serigne Touba da wax ne kuy gërëm gërëmal lawbe bi kuy xalabit xalabal lawbe bi ku ne na sa ndab toll waaye fi ne li ngay mus fii ci kër sëñ Mansour jow moo kër si nekk kër Cheikh Issa Diène moo nekk kër Cheikh Ibrahima Fall moo nekk fene mooy benn caf nga la benn loxoo ko togg ko séddale mu Cheikh Ahmadou Bam par par loo te loolu léegi la xew nii léegi waxuma la ci biir euh, ñu ne ñu ne ca bitt di song sax waaye ñu ci biir yoon yooyu weddent ñaari kurel naka am ñi ay daanukat lañ mooy ñi ma bokk man tëddkat yi man de naa leen jéggi naa daanu damaa fa tëdd tëddkat yi tëddkat yi dañuy wax dañoo ëppal léegi ñi jàgg ñu ne gëmuñu sëñ Tuubaa moo tax fi ne combat bu jafee lijjanti lay doon maanaam daanukat yi dañ ñi jàgg dañ ne dañoo ëppal ñi daanu ne ñi jàgg dañoo bañ sëñ Tuubaa noonu sëñ bi la moo tax loolu lijjanti loo wax yi ne ah waaye daal bëggul sëñ léegi boobu gàkk fóot ko dana jafe ci ñoom ndax boo nanguwut a wax mayi sëñ nangu wax ko sëñ bi gërëm nangu woolox lu sëñ bi defal kenn lu muy bëgg a nuru bii jataay rek doy na ci misaal tey ñii dañuy yor bu bana léegi la gis bind bind ci moom jaw Mansour léegi la gis ku bind nangam nangam loolu loo ko bëggoon a tekki nan nga ko bëgg a tekkee lan lay doon ndax dañoo yónnee nit leetar na ko kaay ñëw la sëñ Tuubaa waxoon sëñ Ahmadou Diaw sëñ Ahmadou Diaw Paxa sultaanu Ali fii ne ca gànnaar ba mu ko wooloo ba mu ñëw loolu sëñ Ceerno ma ko nettali ubbi téere boobu dañuy wax ne Fuqul la nee na mbooleem tur yi woolu ñëpp séen na ko ne ko ko aju bu ma neexoon yónnee fa yow ba yónnee la bataaxal def ci sa turu ndey def ci sa turu baay waaye kon ña ma ko defu day doon ngànt ci ñoom waaye xam nga lii jàpp weñ mu di blessé mu ne ko mooy man fu ma nekkoon ngeen fekk ma kon lolu sëñ bi tànn ñi wuy ci si bi and ak mom ñew ci mom legi nak ndaw yi jëw daw jëm ci sëñ Touba war jang jàng yi wala bok ci daayira yi wala liggéeyal sëñ Touba dafa am ñaari kulal yu taxaw di len xajj ñi ku len gëm lañ bëgg mooy ahlu nangam wa nangam ñi ay politiciens lañ ñu aduna da nga gis kook li muy daj ci kook aduna bu ko dajon ci kër sëriñam am ngërëm du siyaré ji du balé du leggey te kook aduna jaral nako daw jaral ko xal jaral ko xex ba egg ci ne jaral na ma sama bakkan te boo delloo ca fa nga bokk loolu doo ko fa jëf mag ñi loolu lañ jiitoo woon mooy mosunoo dégg da ca bokk benn chaar benn symbole bu ñu amoon mooy lu sëñ bi bëgg dana am lu mu sant dana ko def loolu xoolal tey nan nga ko mën a xamee ci guddi gii lu nekk ni Cheikh Moustapha dogoo ci li sëñ Tuubaa bëgg ba mu am loolu moo lay firndeel ne li sëñ bi bëgg nañ koy jëfee dogu gu wér ga nekk ci ñoo ma leen koy may te loolu mooy fexe ba saxal bëggug sëriñ bi di ko jëf te duñ ca dellu ginnaaw tey jii bu fekkoon ne gunge wuwul woon seen bopp ci melowoo duñ am lii lu seex Mahamadul Moustapha al Karim may te moo ne bu dee ak bokk sëñ bee léppam te lépp luy tax nit jariñu ci sëñ Touba Cheikh Mahamadul Moustapha defal na ko sëriñ Touba takkal na koy nekk jox na koy addiyee bi na lu koy kaamil dafa doxal na koy yónnee loola jëfam la ju koy may loola jotewul ak nag dara doon nga sëñ Tuubaa doon way juróom waaye xoolal ndigal yu diis yi ko sëñ bi teg sant ko ko ci jamono boobu mooy fexe ba indi sëñ bi Tuubaa bi ma demee ci sëñ Moussa Nawel di ko laaj wàccug sëñ bi nag comme wax yi day bari mu ne moom mu ne ma li ma lay wax man sëñ si laa ma ko wax te sëñ Maxtaar mu ne ma moo mujjoon ci sëñ bi doomam mujj sëñ Basiiru na ma Moustapha mais moo mujj sëñ Moustapha Basiiru fekk ba koy laaj mu ne ma sëñ Maxtar Sylla nee na ko tubaab bi tiimul sëñ Tuubaa mu ne lu tax mu ne sëñ ba ak sëñ Mbour Moustapha bañ nekkee fee ñoo ne sëñ Maxtar demal woon ko ko ndax ma nga ca ginnaaw kees gee ñu del ko waaye nee bi mu jubee sëñ bi dafa mel ni dafa fakk salu moom tubaab bi daanu bi mu jógee ñu ne ko bismillah aksil ne dafa faxasu na merci merci neen na loolu la wax ba nii eggul ci sëñ bi kon loolu beneen mbirum sëñ bi ci boppam ak mbirum boppam la moo xam ne doxinam la ci jëfam diggante ma boromam waaye xoolal tey loolu mu batale woon bu amuloon luy xew xam nga ab tabax boo ko rombee mën nañ ko kare nga gis karo bi mais fondation bi ko téye mën nga koo bañ a gis te fekk bu loon fondation bi loo ci teg du ko attan Cheikh Mamadou Moustapha même nit waxuma sëriñ waxuma kilifa bu donnu baayam dib xalifa ni nga war a roy Cheikh Moustapha waaye même nit kuy politique sax daa war a roy sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha bàyyiwul jenn rakkam nga fanaan biti ci Cheikh Mamadou Moustapha nga gis xalifa boo xam ne mboolem ku mu bokkal sëñ Touba dalaa yebal ci béréb ba noppi wax waa ñooña képp koo xam ne sëñ Touba la tax a jóg bu romb kooku ñëw fi man comme sa yittey bopp nag mën ngaa ñëw waaye bu dee sëñ Touba nga soxla ki foofu ci yéen sëñ Touba la soxla may mun a nee na yeex naa xam ne Cheikh Mamadou Moustapha doomi Sëñ Tuubaa la dafa jàppoon rek suñu bu bàyyi la léegi loolu xool ko ni mel ñaata kër ngay dem wala ñaata nit ngay ñoo xam ne boo tuddee mag ja rakk ja wadd boo tuddee rakk ja kenn xamul li xew ku bokk ci yoon wi xam nga sirki bi ni muy dox yoon wi mel sëñ Manou Sow nag jëlu doom yi sëñ Touba yi jëli doomam teg ci kaw xoola sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Fatma ni meloon xoola sëriñ Mbacké Madina ni meloon waaye xoola fi mu leen tegoon ci wan leen ne leen doom yi sëñ Touba yi seen kaw yeneen nekk seen suuf loolu moo di defar gi mu defar loolu même ma ne ñi nga xam ne ay kilifa lañ nga xam ne moo daan dëneele ku ne ab cëram Cheikh Modou Moussa moo nekkoon imam bi nekk sëñ bi jàngale ndax ci njabootu sëñ Tuubaa am na ñoo xam ne moo leen tëralal téere xam-xam waaye yëmu ci bu dëneele jotee aw ñam mooy séddale ngir kenn bañ a ñàkk sa cër loolu mooy nit ku mat ba noppi nekk entrepreneur bi ba nga xam ne nekk dirigeant bi ndax li war a taxawal jumaa ji moo ko war a taxaw gérer ko ba noppi am ci yitte ju ci taxawaay boobu kon day mel ni li fi sëñ bi bàyyi woon muy njaboot gi tey ku sëñ Modou Moustapha yar ak ku sëñ Touba yar mënoo koo xàmme ndax la tàmbale Cheikh Abdou Lahad ak Serigne Saliou ak ñëpp ku leen yar Cheikh Mamadou Moustapha Karim te jikkooy sëñ Modou Moustapha rek mooy jikkooy sëñ Saliou mooy jikkooy sëñ nangam kon melo yarinu sëñ Touba mooy yarinu Cheikh Mamadou Moustapha waaye dëkkam bii di Touba tey Touba gi nga xam ne bët bu set nga gis kuy yëngal bu dul sëñ Modou Moustapha ba ñu titre foncier xew ñaata nit ñooy jóg ngir bëgg a song Touba jumaa ji am tey bu ko seex Cheikh Mamadou Moustapha taxawulutoon sëñ Touba ñëw Touba li muy neex neex li muy rafet rafet bu sëñ Touba desoon njëreem ak li muy bëgg-bëgg tuubaa njëreem ay gën a neex Touba bu ne woon sëñ Touba njëreem lañ ko leen ah xam na tabaxub kese moom taxul nit ñi di dëkk ci dëkk bi njëreem la nit ñi dem di dëkk kon ki tax nag la sëñ bi bëggoon tuubaa am mooy Cheikh Mamadou Moustapha mu fexe ba andi sëñ bi Touba. waaye xoolal yi ko sëñ bi daaloon lépp nga xam ne jumaa ji taxaw dong raay bi taxaw dong ci côté finance liñ ci def ban naa tabax ay jumaa waaye Cheikh Amadou Moussa boole ngorom ak i nelawam nga xam ne xefu kawam du wàcc jëm si ci xefu suufam war a lijjanti lépp te dara yàquwul te lan la leen yore mooy jikko ju rafet jikko ju rafet rek kenn ku ci nekk taraanga jëm la ji mooy jikko ju mat jikko ju rafet moo tax boo demee ci Cheikh Amadou Fadal booy wax daan sama mag ju baax ji mboolem njabootu Serigne Touba goo ci tudd la muy wanee ci Cheikh Amadou Moustapha mooy taxawaay bu rëy boobu am màggal gi bu saa ñëw bokk yëpp lay dajale ñi bind discours yi ñii lire discours yi mu mu mu mu recadré waat yëf yi dajale waat yoon wi ñëpp daj nga xam ne chaque année boo xoolee yaakaar naa am na téere Cheikh Amadou Moustapha boo xam ne dajale nañ ci ndénkaan yëpp. dañ lay wax bii waxtu sàngam la woon bii dat sàngam la bu ci nekk delloo nit ñi ci ragal yàlla delloo leen ci bennoo fexe ba nit ñi jàppoo nekk benn ndax ak tàggalikoo lan lay jur alxuraan ne na yéen boo leen tàgg wala tanaasaxu fa tafsilu wa tadhabu riixakum bu tàggalikoo amee rek échec am force du am dañ naan li kenn man ku nekk ñaaree ko ko nag شيخ منصور الله لولا دي جانغال نيت ني لان مودي اك طالبي فليست الاراده بما جرد الكلام فحسب بل ما غرائن تدور على صحتها الا وهي صدق في المحبه شيخ منصور الله اك طالبي دو ريك طالبي لا ولا مريد لا مريد لا باي امنا رابور يكوي دغال يكوي سخال لولا موي لان موي دغال تي بغ سيغ بي اك جيفه لم لا ديغال باي لم لا تري كون ورنا لا يون وي نيت كي دي جار تا مودي ملوكانو اك طالبي لب لوي تاخا جاريني ريك مودي اك طالبي lay tax nit mucc tey mooy ak taalibe ndax lépp lu ñuy sàkku di ko wut yàlla teg na ko ci loxo yi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul dara tëjuwul ci digganteem ak boromam dara tëjuwul digganteem ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu ma sa sàkku ni mu ko bëggee woon am na ko kon nañu gën a dolli suñu pas-pas rek dolli suñu taalibe jox yitte sëñ bi te ku ne fonk fa nga nekk te góorgóorlu ca te wàññi coow lu amul njariñ li te moytandiku coow yi ci réseaux sociaux yi te góorgóorlu ci daayira ak liggéeyal sëriñ bi est-ce que yeeg fi dara sotti jëf mooy tax nit a jariñu sëñ Tuubaa daana wax ne ca laa bokk ca laa bokk te sa dara néewu ca ba bi su payu ba te loolu alxuraan la wa laysa linsaani illaa maa sa'a nit ki mënul am lu mooy lam jëf li nga jëf rek moo lay jariñ kon sunu taalibe nañ ko dëgëral rikk waaye buñ bokk ci ñi ni influencé ba jàpp ne la fi nekkoon amatu fi ku ko sakkoo lañ ko sakkoo woon am ko ku ko sakkoowul noonu doo ko am moo ne tey bu nee sëñ Mansour Diaw dara jaam ab cëram maqaamaam mën a tagg sëñ Touba jeex ci moom takk bañ gisa bañ gisatul sëñ Mansour bàyyi sañ Diaw bi mu ñëwee lu xew mboolem garaat bu ñuy takkal góor yàlla ci murid saadix ci mën a jëf ci pas-pas ñëw na ba marqué ay apprentam ba tey waxuma boo newul sëñ Mansour waaye defe naa doo taxaw fenn ci yoonu mu murit ci biir yoon wi ak dëkk bi wax bàyyi sëñ jaw te kenn xamul te loo koy xamee mooy jëf te réyub cër yow digganteem ak boroomam waaye mën a jëf ak laxasaayam jëfam mboolem ay hëdaayaam waxtu wu nekk dara mës sa manqué ak jaayanteem dara mës sa manqué waxtu wu nekk mu gën a dolli pas-pasam di ko yeesal loola nag day yokk waaye du wàññi ko ndax lii fii daje manoon naa daje boo dajewuloon ca booba kon day gën a yokk ba ila yawmi diin kon loolu lañu war a xam ba ku ñëw nga fexe ba am ca ngërëmam te kat la sëñ Mansour ja waxoon rek sëñ Tuubaa daal mooy koo xam ne képp ku ñëw di ko siyaare ngir jëmmi yàlla kese képp nee na faw nga lamb ak texe faw nga lamb ak mucc la muy bëggal murid yi mooy lan lu leen demee ñu yegg ci seen borom subhanahu wa taala ngir ne bu fekkee ne suñ borom ay ngëneelam ak tedd nga am da koo teg ci loxo si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ku ca bëgg a jot faw nga jëf-jëf juwel kon yàlla nu yàlla boole dimbale defal nu tawféex ba lépp loo xam ne sëñ baa ngi koy séddale kenn ba ñu ci ëppale ci barakat Cheikh Ahmadou Bamba yàlla gën noo fayal man Mansour Diong yàlla nu ko yàlla gën a fayal ndax mag ñi dañ ñuy dimbale noonu gëstu bi ñu koy gëstu ah ginnaaw léegi ku jàng man ñaari addis rek ah faaw nga jéem a nangam li yonent bi alayhi salaam wax ne inna naasa isa taallamu al ilma wa taraku al amal taxaababu bil alsinati wa tabaagadu fil bi nit ñi bu buñ jàngee xam-xam ba noppi jëfewuñ ko dañuy bëggante ci làmmiñ ba noppi bañante ci ay xol te loolu moo bari ñu bari sama classe gi ay foo lañ man lañ laa tàpp parce que sama waayi bopp nangam boo leen wane ginnaaw ñu sànni la baat léegi-léegi nit lëng la sax di lee sama xarit fekk ci biir téléphone bi mu yor <clears throat> ay wokkaala nga ci yoo xam ne yow lay xas moo tax yeneen ci wax dañuy bëggante ci aw waaye dañuy bañante ci ay xol buñ jàngee te jëf mag ñi nag da ngay gis ku wane xam-xam xoola xasidaam googu xam ne seyxu zamaan yi la ko jeexale loo wax mu ne la kooku seyxu zamaan yi seyxu zamaan yi boo ko dee jàngat nu muy mel waaye li ma jëkkoon a gis ci moom tamit tamay faral di ko nettali sama waxtaan yu bari nga xam ne daf may boo ne tey boo ne woon yàlla de lim yor jox na ko sëñ Tuuba nga dégg gaañ subhanallah la sharika lahu bokkaale loolu jotewul ak bokkaale dara ginnaaw tuutil mun ko mën tasha yàlla ku ko neex moo lay jox nguur ginnaaw ku mu ko joxu doo ko am mais noo koy rëw noo koy noo koy ñëwee di ko coup d'état jël ak nguuram mënul nekk ay waxin lañ war a dégg fi ne da ngay dégg bu ne diw murit la maanaam la ana ana murit noo koy lam lam boo ko lammee noo koy daje luy murit mu murit ay jëf la wala aw turu kese la diw cadre la lu mu def ba tax mu def nangam diw intellectuel la lu ko indi ci niveau ba tax mu nekk intellectuel maanaam lu ci nekk tur wa day am lu mu représenté même nit bu la yéemee da ngay dégg ñu ne du nit sawaay du nit lu muy doon la lam dafa tax même nit bu la yéemee ci nasaraan nga ne diw tubaab la du ko la lam dafa tax nit ñi bu ñuy wax sëñ Touba waxuñu ne sëñ Touba mooy yàlla léppi sëñ Touba day lépp yàlla ndax ki wax ne man la turab bi maliki kulliyati xaali lahu ka amali wa niyati lool lool loolu leer na shahitu anna allah rab xalq wa anna ahmada rasulul xaq ko koy wane na boppam baana li kul ma lahu maqulu ana wasilati huwa rasul loolu lu leer la kon sëñ bi wax na boppam fi mu nekk waaye jëmmi bu fekkee ne dafa wax ne suñ borom is amhamullah turan wa makarimuhu miftahuha bi yamini fa wallahi loolu bu fekkone da nga jek jek rek ne xewali yi sëñ xéewal suñu borom yi kat se bam nek tiabi je ma nga ci loxop nday jorum sëñ Tuuba da ngay mais bu ko Mansour waxe ëpp la ci ci yalla gën la ragal yalla gën la gën la sam gën la bax ëpp doxu loy wax kon mag ñi dañuy dimbalé non ci kat yi non ñi gëssu dañuy dimbalé te kat bo leen dé gëssu xam-xam mi ngay am day boole ragal yàlla ak dëgg fi ne am na xam-xam yoo xam ne ak kàccoor ak weddi lay jural nit dafa fil ulumi ma yuqassil qalba wa yujibul kibra wa yunsi rabba am na koo xam ne mooy waral nga dégg ñu ne siyaare bàmmeel amul njariñ mooy waral nga dégg ñu ne jox ab sëriñ addiye amul njariñ fekk na ñàkk xam la nit ki daf la gën a jege yàlla nga jox ko sa bopp ngir mu eggal la ci yàlla nit ki daf la gën a xam yàlla nga jox ko sa bopp ngir mu xamal la yàlla loolu lay jariñ kon na nañu bàyyi xel loolu bu baax yëf yi jaxasoo na coow li bari na waaye daal la sëñ si Ahmadou Bakki defaat ma waxoon ne sëñ Tuba mooy ngir mi mooy koom mooy ngir mi mooy koom mosuñoo boole sëñ Tuba ak dara loolu dama koy nekk lu bari soxna maam Fati Bakke nay de dama ñëw fii këram di waxtaan ak moom di ko laaj ci sëñ Cheikh ñu ciy waxtaan mu ne ma sëñ Cheikh toog ci moom ñu teg bandu Mama Ndiaye xërnu bi muy muy jàng xërnu bi nee ma di ko déglu ba yàgg ma ne ma ne sëñ Cheikh sëñ Moussa Kadi dafa juum ne mu ne ma lu tax nga wax loolu Mame Faty nee ma ne ko jikko yi mu wax ci sëñ bi yëpp ci yow mii la nekk nee mu jekki-jekki na ma cib cib dama déedéet Mame Faty sëñ Tuubaa du kenn xoolal fa ñuy teg sëñ bi ci ber ko ci melo ak na ñuy mel ci moo ne doxul seen digganteeg lu ñu war a jëf ak fu ñu war a jàngale ci bu lay yoon sëñ bi ni ci wéet ak wéetaliku ni ñuy bere sëriñ bi Cheikh Mamadou Moussa lu ma waxoon li ñu sëñ Tuubaa dig li ma dig te gisaguma ko moom laa gën a gëm ci li ñu gis kon ku séntu ne yoon wi leneen lay mel waaye rikkuwaay ba sëñ man suur Diaw nekkee ci toolu sëriñ Tuubaa di liggéeyal sëriñ tubaa njabootam gii seeni leere ngi ànd ak moom yow ma àll suba fi tey jooju sëñ maam Samba Diarra doon wax sëñ Tuubaa noonu lay demee ci ñi nekkoon ci toolu sëñ bi di liggéey ndax ñi ci war a feeñee jamono ñëpp suñ borom waajal na ko bala ñuy ñëw nga wàccaale am ngërëmul yàlla nga ne ci di liggéey nga am dogg goo xam ne boo waree jëf ànd ko yéene ju sell loola moo lay jariñ ab murit day amub sëriñ di joxe addiye di siyaare ji loolu mooy charte yi léegi moom dañoo bëgg doon murit yi coow rek sama classe gi yëpp moom coow ak woote ku leen gëm lañ bëgg bu ma waxtaanee ñaari nit bëgg la ñu ne gànn kennel sëñ Tuubaa nga beru fee di xëcc mbooloo di joxe cati baaraam loo si mi mbaxana ku jébbalu nga jël boo jàngee sindi di benn yoon aju ca kaw damaa costé yegg na léegi ñu dëgëru juvit ñi sax da ngay man ci sëñ Tuubaa laa jébbalu directement moo tax ma ne leen poste courant kenn du ci chargé portable eggul eggu ma xamam yegg ci sëñ bi amuñu ko la ci sëñ Tuubaa laa jébbalu direct mi ngi mel ni nga fekk poste su bee nga jël sa téléphone romb prise yéeg chargeur yëpp waaxu dem na ca dagaj ne na ngay charge dangay seet ba xam yaa sa portable kuy jëkk a fees da du di teggin sax ñi sëñ bi defar gërëm leen ak ñi sëñ bi meññi nga ne kenn doyu ma fi léegi kon li fi nekk baaxut loolu échec la di te loolu bëgg sa darajey bopp dong nga la ko yóbbi doo xam foo jëm doo xam ñi la topp fi lañ jëme ñenn ñit kër sëriñ bi ñu bokk dañ koy sàggane dem ci leneen fi ne bari na ñooñ la ñuy daj feneen buñ ko dajoon fi ñu bokk am li ñuy wut lu baax nag kenn téréwu ko ko waaye ngi fi nga bokk nañ la xam waaye bu sëñ bi laajee am na murit bopp du matal cotisation ci kër sëriñam mukk waaye feneen fu dara am nga dégg mën a noo jaayante liggéeyal sëñ bi te nga bokk boo liggéey bu ñu taxawee di annoncé it ah fi nga bokk de ñu xam la fa kenn téréwul wuti lu baax waaye looy def na nga xool sa taalibe bi fi mu toll at moo dugg nga natt sa bopp sama diggante sëñ bi sama jëf nan la mel ñaata xasida laa fi mokal luma fi def ci lu bax lan la am ci tiyaba loolu moy tax nit ki yegg fam jëm kon ñu yalla bo la defal dimbal defal na tawfiq sëñ Ahmadou noo ngi sant di sant sëriñ bi bu bax ni ko waxee won di feddi li kóllëre gi ñaan yalla mu samal ngi mi muy wa kër sëñ bi di seere taalibe yi sëñ mi lim doon wax lool rek mo nekk ci moom. diwoo ma jur bu ma la gisee dina la wormal lu bokk sëñ bi. mën na ma simi sama mbax ndax damay waggar ka bokk ci yow waaye roy nag moom ku ma gën a jub laa koy def ku ma gën a tege ci yoon gën maa normal laa koy def waaye jëmmi esthétique bi moom danaa ko respecté ndax bu nee diw sëñ diw war maa la la war waaye nag roy moom ah xanaa doo fekk ku doo jëm ndakaaru fekk ku jëm Saalum nga di ko topp doo jëm ndakaaru waaye war ma ji moom daa war lu yàlla waggar na nga ko waggar bul bokk mukk ci ñi ñi nga xam ne li ñu war a waggar duñ ko war a war a waggar waaye roy moom na nga ko def ku tege ci yoon te mandu ca nag bul bul ko ñàkk roy ba noppi boole caag di ko tudd na nga ca mandu fi ne léegi-léegi wax naa ko ci màggu Sëñ Abdou Khadir gi ma ne bi ñuy coow ci léegi-léegi vidéo yi fuyet nga dégg ko ci kaas na waaw diw dafa baaxut ab saay la ma ne képp koo xam ne mën ngaa wat ci yàlla sa téléphone mosoo cee yónnee mosuñu la cee yónni man ngaa wax waaye bu fekkee ne yaa ngi garde ba noppi am waaye looy wax na la sa ay bopp doy te yàlla bu fekkoon ne ku def dara mu feeñal la samp béjjën bu subaa marché bi day xat maanaam béjjën yi dana fees ba nit ñi duñ xat ci marché waaye yàlla moo suturaal nit ñi sagal leen sakk guddi sakk bëccëg kon nañ màndu ci ayib bi jàmboole kon sëñ Axma man sant naa sama kàddu jaare naa ko ci yow yàlla xam na ne lépp loo nekk danañ ko ànd ak yow ndax bokk fu baax li muy baax baax li nu ci gën a neex mooy su nopp lu ñu ciy dégg xam ka nga doon te ñu bari jaay nañ leen yor xam nga koo war a yónni boo demee ba mu di la yónni koo war a rang demee ba di ko rang te dara warulu ko du yàlla du suñ ci wàllu mooy alali adduna loolu dara jaru kon man fonk naa la bu baax jàpp la te li ma la jàppe ay qualité la man awma complexe ci mun daje woon fu adduna bépp taxaw di ma xaarit cër bi nga moom bu ndaje la ma la ko jox te man du ma li ma gëm laay def moo wóoree ne bu ma nekkee sama biirum néeg bu ma la nuyoo damay simi sama mbaxan bu génnee ci bitti bu ma lay nuyu damay simi sama mbaxan moo wóoree bu nit ñëpp bu ndaje ma la nuyoo du ma ko simi ndax loolu ak nafiq dongoon man li may war ma ji lu ma gëm sama xol la ndax loolu laa gis kon yàlla na yàlla boole defal tawféex wasalaamualeykum wa rahmatullah. ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Gana Messere Maxtaar noo ngi lay sant bu baax.